stabilité pouvoir bi daf ci am bu doy doy waar xam nga Macky Sall dina si ñëwaat Macky bi ñu koy fal en 2012 su doon bilan matériel ay infrastructure rek ñoo tax kon du nekk président de la République mhm. parce que li Abdoulaye Wade defoon nekk na fi ay at di ko jéem a peinture te mënu ko peinture mhm. di ko jéem a eggale te mënu ko eggale kon bilan matériel li ñu sanctionné le président Abdoulaye Wade ak ñi mu àndaloon bokk na ci nit ñi dañ doon wax ne ñun de on veut beaucoup de sobriété mhm. ñun de bëgguñu di jiite nit di yëg ne ma ngay gën a am ñun de bëgguñu saa bu ñu déggee coowal suuf rek ñi nekk ci nguur gi ñoom ñoo ak i moo suuf si ba nit ñi mënuñoo am suuf ba nit ñi mënatuñoo am sax armeel yoo xamante ni mën nañ fa suul boo demee jàmm gën si kàmbaaw tey amuñu armeel yu ñu suul seen armeel dafa fees dell yaa ngi dégg ak yeneen dëkk yoo xamante ni tey problème mu foncier bi fa mu jëm donc loolu gaa yi doon ko lu mooy c'était le bilan immatériel du point de vue comportemental mmh. ci contexte boobu ci la Macky Sall ñëw bi mu ñëwee il avait il avait fait un excellent diagnostic xamoon na li gars yi bëgg. Mhm. xamoon na li Sénégalais yi bëgg. xamoon na li ñëpp ñi nga xamante ni dañu bëggoon paix ak justice li koy indi moom xamoon na ko moo tax mu ne le parti le parti avant. la patrie avant le parti. la patrie avant le parti. Mhm. ñu sous-entendre avant la famille. Mhm. mu daal di waxaat ne une gestion sobre et vertueuse. ñu ne bërit mu indi cri daal ne demande sociale la. Hmm. xam nga boobu ci rapport cour des comptes bi dinaa si ñëwaat parce que fi mu ne rapport bi dañ ko yóbbu ñu ne pour concertation. xam nga cour xam nga bi muy def CREI concerté wul ak kenn. Hmm. bi muy def bi ñuy yóbbu xalifa sàll di ko yóbbu kaso concerté wul ak kenn ci rapport IGE bi. Hmm. rapport cour des comptes bi xaw ma lan moo tax mu ciy def concertation lool mooy wane ne. wane na yéene ne lii moom ñooñam kenn du leen laal te loolu mooy le drame te loolu moo indi lii yëpp. li fees nit ñi seen frustration ci seen xol mooy que ne dañoo gis ne président Macky Sall dafa lot dafa wane jafe-jafe ci bàyyi justice mu jëfee yëfam ci bu ñu léegi nag gis nga am na foo xam bu ñu fa tollee kii jooy ki ñuy dóor doone ko noppi lu dul da ngay téye yar bi tey jii sëñ bi suñu société bi ay victimes yi dañ ci bari dafa bëri ay ay ñoo xamante ni ay jàmbaar lañ mais dañ leen a blessé. <laughs> et que ñooñu. Mm. mais nit koo xamante ni dañ ko blessé dañu ko dañu jël akam dañu ko tuumaal dañu xotti wormaam mais ñooñu suñu duggee ci politique. ñooñu amuñu jotu yar nit ñi ci citoyenneté tout à fait amuñu yor yar nit ñi ñi leen di wuy ci civisme d'accord amuñu jotu yar leen mm-hmm. ci yenn valeurs yi xam ci lu ñu leen di yar mm-hmm. nañu nan la ñuy def dëgëral taxawaay bi ba li amoon dootul amati donc loolu moo tax aujourd'hui on voit dans l'espace public mm-hmm. beaucoup de haine un sentiment de revanche bëgg a def revanche systématique te Macky amuloon droit boobu parce que moom li ñu ko defoon assemblée nationale loolu la jàppoon ne su comme ko muy Karim parce que woowoon na ko assemblée nationale ne ko ñëwal ñu auditionné la. Mhm. gars yi ne daf ko bëgg a auditer. Mhm. c' est même pas le rôle de l' nationale d' auditer. Mhm. bi daal di jóg manipulation bi daal di jóg. ba mu ci jógee bi mu ñëwee ci vingt cinq personnes yooyu ñu listé woon. pour procureur Aliou Ndao xëy listé vingt cinq personnes. ne ñii dañoo sàcc xaalis Sénégal kan moo ci dem kaso. su weesoo Karim Wade ñu tëj ko génne ko réew mi condition yi ñu ko génnee réew mi xaw ma ko xamuloo kenn xamu ko te nee dañ ko def au nom de la République et au nom de la justice d'accord on a compris c'est ça qui explique aujourd'hui le fait que beaucoup de gens qui entrent en politique ah. mais sont systématiquement dans une mm-hmm. radicalité mm-hmm. ak benn rapport conflictuel boo xamante mm. ki ko expliqué mooy Macky moom moo ko ji li mu ji nag mm-hmm. loolu lay récolté amee je me suis amusé ah ci ñu doon wax ne na wàcc na wàcc na wàcc dem ci ñooñu laaj leen lu tax mu war a wàcc donc euh, li ñu lay wax mooy euh, Papa Djibril Fall dafa ñu war a wax fan la far. maanaam fan la bokk dafa ñu war a wax non waru waxuñu loolu sax dañu dafa dañu wax ne Pape Djibril Fall dañu wax lu leer dañu war a wax lu leer c'est-à-dire lu leer loolu mooy ndax ci. côté côté président Macky Sall la far wala ci kujje gi loolu aussi c'est euh, ay mbir la yu nga xamante ni yu ñu recueillir foofu alors loolu ban ban ban mu nekk jàngal nga ci Mohamed répond kii question bu am solo la mm-hmm. ma leeral ci mm-hmm. keroog oto bi ma yoroon oto bi ma indi noonu keroog mm-hmm. te ñi nga xamante ni ñoo ma ko luyee ñoo ngi may déglu Macky Sall nee na député yi du ñu am oto Macky Sall nee na député Sénégal yi du ngeen am oto indemnité ngeen di am ku nekk débrouillé xool nan lay def ba am donc l'histoire dina retenir ne ak yi boo xamante ni député Sénégal ak ni député amee solo Macky Sall mu ne député du ñu am oto oto bi ma yóbbu foofu keroog dama ko loué waaye ku nekk ci nguur gi xanaa di nga am oto bi may def bi may def campagne électorale yéen xam ngeen ci dara mhm. biñ ñu tuumaalee keroog may def fii seen show mhm. mais keroog li ma fi wax ci ay témoignages yoo xamante ni ñoo ngi koy dund nga xamante ni amuñu carburant amul fa ma doon dund démb fa laay dund tey na samay wayjur doon dunde démb noonu la ñuy dundee tey ne ma doon dundee ña ma doon àndal démb ñoom lay àndal tey ñu continuer di dund ci conditions yi ñu doon dundee xanaa ku ànd ak nguur mais dina feeñ fenn ci yow ànduma ak nguur ànduma ak nguuru Sénégal nguuru Sénégal lépp loo xamante ni proposé nañ ñu ko te fa ñu nekkoon démb nee naa la foofu moo gënoon a yomb mm-hmm. foofu lu ma fa amul ci proposition amul ma won ko ginnaaw proposition yi ñu ma mujjee def yépp dama koo dama koo gantal ne askanu Sénégal lay àndal di bokk ak ñoom seeni i jafe-jafe rapport de cours des comptes bi génn tey mais rapport bi ñun bi ñu ciy wax di ci am luñ ci xam di ci jël ay position mais boobu sénégalais yi ñu gars yi di di dem di di ay marché ak ñooñu on n'a même pas de leçon bu ñu jël ci ñoom ci xeex corruption wala xeex mal gouvernance est-ce que bi ñu laajte dañoo bëgg nga leeral leen. waaw loolu opposition ou le pouvoir. mais ñoo ngi ci opposition. de façon parce que je pense ñoo ngi ci ñoo ngi ci opposition bu xale naan na leer. dafa am ci ñoo xamante ni. bëgg nañ lu leer am na ci ñoo xamante ni wóor na leen wóor yàlla ne leer na waaye dañoo nekk ci par parloo te nag Sénégal amul délit d'ambition mënuñoo tere Jibril Fall ne ko bëggal la gën a rëy la gën a màgg li nga xamante ni am na ci réew mi ngir nga mën a yeggale sa yéene ci Sénégal kenn mënuñoo teree bëgg li gën a rëy li gën a màgg kenn mënuñoo teree dox xeer yooyu keroog mhm. ak saaga yooyu ak xaste yooyu ñu fa dégg wallahi alazim mënuñoo teree egg fi nga xamante ni foofu la ñu jëm parce que sunu détermination dafa rëy te waxoon naa leen ko bi may déclarer suma candidature mhm. waxoon naa leen ne lu leen yàq defar lu leen yàq jaral lu leen yàq jaral mhm. defar dinañu ko jaral te loolu ci la ñuy woo sénégalais yépp yi nga xamante ni ils sont épris de paix et de justice d'accord alors euh, Pape Djibril sànq ba tey yaa ngi wax ci ci rapport Cour des comptes bi je pense que mën nañ ci ñëw wax ñëw nga sax ci euh, concertation yi nga xamante ne apparemment onduloo ci ndax da nga jàpp ne cette fois-ci encore le président Macky Sall narul jël ay responsabilité o awma ci yaakaar ndax keroog ci discours u 31 décembre bi dinañ si ñëw xëy na mhm. discours bi dégguloo benn yoon président Macky Sall condamné li nga xamante ni mooy alalu Sénégal bi nga xamante ni jël nañ ko mhm. te li mu waroon tàmbalee mooy naqarlu alal ji nga xamante ni jël nañ ko moom warul woon a fekkee fu ñuy jëlee alalu Sénégal ndax dane sénégalais yi ñu ñi fi nekk ñoo ngi jël seen alal sénégalais yi ne ko dinañ la tànn ngir jël alalu jàmbur li ñëpp bokk dootu fi amati mais mënuñu la fal ba pare nga ñëw dans ce contexte nga bàyyi sa ñoñ ñuy caxat-caxatee xaalisu Sénégal mais li ci gën a graaw mooy contexte bi ñu ko jëlee moo ci gën a garaaw ñun ñëpp bo ñun ñëpp dañoo rëcc nous sommes des échappés parce que am na ci ñoo xamante ni ñoo ngi doon ànd ak ñoom fonk leen trop bëgg leen trop te tey ji ñoom wuy ji nañ suñu borom li tax ñu wuy ji suñu borom am na ci am na ci koo xamante ni dafay témoigner keroog mu ne dafa wër ci biir covid bi hôpitalu dakaar yépp di wut oxygène amu ko mhm. nee na dafa mujj daw ak papam yóbbu ko jege ci géej gi côté géej pour mu mën a noyyi mhm. te kooku finalement dafa décédé mhm. am na ci koo xamante nii euh, sunu wóllëre la médecin la ma xam ko mu doon jiite fii benn CTE xam nga lan moo tax mu démissionné dafa nekk ci liggéey bi ba sonn ki yoroon wàllu paj mi taxaw ci kanamam caméra yi tiim ko kooku taxaw ci ginnaawam mu ne ko on a aucun problème tous les problèmes sont réglés mhm. kooku dafa démissionné ci saa si nga xam li mu am expérience ci wàllu covid bi kenn xamul ni mu tollu actuellement mu ngi def mi def disponibilité dem bitim réew di liggéey mhm. ak yu bari yi nga xamante ni dund nañ ko mais dans ce contexte la comment on peut penser que ay nit ñu nekk en guerre loolu haute trahison la mhm. parce que bu ñu nekkee guerre di dem guerre képp koo xamante ni joué nga contre les l' intérêt général joué nga contre l' intérêt du du du peuple mais haute trahison la. donc tey jii pour man lii waxuma la sax les juridictions simples mais la haute cour de justice. comme ni nga xamante ni noonu la ko waa wàllu Sénégal waxee war nañ ko war a gën a dooleel gën ko profiler ba nga xamante ni les ministres qui ont été cités les ministres qui ont été indexés ñu mën leen fa yóbbu déglu leen parce que loolu dina nekk un un signal extrêmement fort ba nga xamante ni alalu Sénégal kenn dootu ko jëlati. mais mais justement en réponse gis nañu ñenn ñoo xamante ne dañu nekk soit ci nguur gi wala ñu jege nguur gi euh, ñu ngi wër ay plateau wala ay euh, di wax ci ay euh, ay journal di dénigrer cour des comptes organe de contrôle yëpp. d'ailleurs wala ñu koy désavouer. mais dafa am ñu ñu tudd ci cour bi ñoom gisoon nañ fi ay magistrats de la cour des comptes. Mhm. dem ne di leen vérifier ñu dàq leen ci biti. c'est gis nañ fi soxna Nafi Ngom Keita. ñu koy gërëm di ko sargal bi muy nekk vérificateur général de l'IGE mais lii gars yi di wax nii ci rapport Petrotim bi mais moom moom la ñu santoon liggéey boobu bi muy doog a ñëw bi mu commencé di def enquête bi mu demee ba ci biir ci biir enquête bi ñu daal di koy révéler ne ko am na ku ñu jàpp ne rakku président Macky Sall la mu ngi ci dossier bi tudd nañ ko ci